salaamaaleykum tey nag euh, ñu dellu soit ak yéen ci seen émission yi nga xamante ne ñu ngi leen koy faral di defal ak euh, ñaankatu yàlla yi tey nag ñu seet koo xamante ne ñaankatu yàlla bu mag la ñu ràññee ko ci Sénégal waaye Afrique dafa mel ni sax ñoom ñoo ñu ko gën a soxla ko Sénégal ndax li muy toog ci réew mi bëriwul daanaka boo compter li mu def ci ay dëkk ci Afrique mat na ñaar fukki dëkk yoo xamante ne wër na ko li ko ko may nag mooy xam-xam bu sell ak wax joo xamante ne lu mu la wax du deñ te lépp loo xamante ne xamu ko du ci nangay sori waaye nag xam-xamam màcc lool lu jëm ci wàllum ñaan moo xam mbirum bayre tukki ku tële képp koo xam ne da nga am soxla boo xam ne dafa laa jaaxal boo seetsee ki ñu seet si tey muy Serigne Bara Niane borom def gis sa soxla dafay daal di faju say aajo faju lépp loo xamante ne amoon nga ci yére mu faju sëriñ Bara ñu ngi lay nuyu di la dalal ci sunu People TV. aùzu billaahi a shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi la si xalaqa fa sawaa wala si xadra fa xadaa wala si axraja almarha fa jaxalahu xushaan ahwa wasalaatu wasalaamu ala saahibina saahibi la si xattu maa ngi tuqaan hawa in huwa ila wahin yuha ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay di leen nuyu nuyu bu sell di nuyu bu lislaam di nuyu képp koo xam ne yaa ngi siiful di ñu bàyyi xel foo ma nekk ci àdduna bi lu mu sori sori sori ak lu mu jege jege jege ñu ngi lay jox sa wàcc wàccuwaay ñoo ngi nuyu bu sell di nuyu bu lislaam di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Serigne Bara Niane jërëjëf maa ngi koy wax léegi ci njëlbéenu émission bi sa xam-xam màcc lool ci wàllum ñaan waaye dafa mel ni bitim réew ñoo la gën a soxla sax que senegal Sénégal donte yàgg nga ci fii ci senegal waaye gis nañ li ngay toog ci réew yu bëriwul lan moo waral loolu. alhamdulilah rabil alamin xam nga moom ni nga ko waxee ba léegi am na ci ñoo xam ne dañuy soxla réew ci wàllu xalwa ñaan yàlla. ci wàllu sarax ci wàllu bi bëree bari moo la ñuy déplacé wu bëri na ñoo xam ne bu leen bëggee ñaanal dëgg fekk tegu ñu la bët ñàng du nangu moo waral nga dégg naan damaa ñaan lu ba seen may ma dara fekk na loolu mooy tax am ñoo xam ñaan damaa sangoo sangoo sang ba bëgg a dee gisuma dara mm-hmm. fekk dañ ko teg bët wala moo a teg leen bët mm-hmm. ñoo xam ne ba ngeen dugal faa nga dugg ba leen di dugal xalwa mm-hmm. dëkk ba nekk fa ngay dem duggoo fi xalwa bu nekkee Mali demal Mali duggoo fi xalwa foofu bu nekkee Paris mm. dama ba Paris nga dugal ko xalo bu nekkee Sénégal nga ñëw ba Sénégal dugal ko xalo mm. am ñoo xam ne si du ñëpp nag mm. parce que dafa am doomu aadama dafa am ñeenti bidiw ndox suuf safara ngelaw benn bi ci nekk nag faa nga xam tabiix ni ki bidiw nit soo ko xamee xam ni nga ko war a defal loolu moo tax loolu tukki yi di parfois muy jegante parfois muy bari ci Sénégal ñu ràññee lool dañu def émission ak yow DTV macha allah ay kilifa di woote ba ci sax ñoo xamante ne li ngay def la ñuy def waaye ñoom ci weneen wàll lañ koy defee ñu woote nangu la sa xam-xam ñun moom jot nañu appel yoo xamante ne macha allah ci télévision bi nee na ngeen invité ay borom xam-xam waaye kii xam-xam gi mu ñuy wax ak ni mu koy waxtaanee ak pédagogie gi mu ci àndal daf ñoo yéem lan mooy secret Serigne Bara Niane def gis. secret bi moom xam-xam la rek di waxee xam-xam jàng xam-xam xam-xam nekk ci xam-xam toog ci xam-xam loolu kese ndax moo waral am am na ku nekk di wàllu Nigeria mm. euh, benn kilifa gu mag la bokkuñ sax ni muy liggéey ak man mm. ndax man Serigne laa. nitu yàlla moom nag la leneen la mm-hmm. ci loolu liggéey yëngatu moom kaar na ma sëñ man féticheur la mais médiqué ngay wax mm-hmm. ak yaas kaxa ni kaxa kaxayaa ilu boobu mm-hmm. turu rawaan boobu bi ngay waxee damaa xam ne am nga xam-xam nangu naa xam-xam mu ñaanal ma nag yàlla nga gudd fan yàlla nga wér ñu waxtaan leneen loo xam ne jërul wax si télé am yoo xam ne sàkk na ko ci man ma ne ko yàlla baax na incha allah dañ ci waxtaan te keroog mu jógee ci émission DTV bi la ma woo ndax loolu rek mooy xam-xam rek hmm. xam-xam boo ko amee hmm. sul xil mi xaalimin hmm. foo mën dem ci àdduna da nga nekk doo sonn tey doo sonn ëllëg ndax xam-xam rek moo jërëwul ndax moo tax ab jullit bu ne dafa gëstu xam-xam boo gëstu sa diine nekkee farata am xam-xam dafa baax ci ab jullit xam-xam bi yëpp a baax nag xam-xam bon amul yëpp a baax kii jàng français ba am ay diplôme xam-xam boobu baax mm-hmm. ku jàng alxuraan noonu xam-xam yëpp baax mm-hmm. loolu moo tax nit dafa du jàng rek moo mm-hmm. waral toog xam-xam rek moo waral nit ñi di ma seetal loolu waaye ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ma gën ñoo baax rek loolu dafa loo xamante ne yaa ngi koy nëbb ba léegi wane ko ci xam-xam waaw xam nga li ma jàng yëpp ma ko di naa dund ba jóge fi na xam boo xam ne nit sa laaj du ko fal ci loolu yàgg naa ko wax ci sama plateau yu ndax xam nga nit ki nar la ñaan la ba sonn sëñ bi gisuma dara mu wala téléphone nga def li nga def benn quatre heures mu jàpp loolu lan la te nee na ñaanal na ba sonn sottiwul ay at yu bari ku ne sonn sottiwul yow nga def li ngay def def li may def te du bind damay def li may def rek benn quatre heures mu sotti xam loolu kenn xamul mu doon loolu xam-xam boo xamante ne doo ko bind ci këyit déedéet lu ñu bind ci këyit xam-xam du lu ñu bind ci këyit kese mm-hmm. am na façon xam-xam yoo xam ne kenn du ko bind ci këyit mm-hmm. lu ñu bind ci këyit mm-hmm. am na xam-xam yoo xam ne ci garab dañ koy def bëgg de am na ko mooy ku nekk euh, Canada. Mhm. damaa war na ma sama soxna dafa mais ñaan naa ci lu ma fukki sëriñ ak juróom-ñett. Mhm. mais musuma gis résultat. Mhm. boobu nag teg ma ne ko ma ne ko bala maa wax dara. bàyyi ma seet ko pare. bi ma ko seetee pare gis ko. ma wax ko génne sarax juróom-ñetti nen. yu weex ak juróom-ñetti nen yu weex yu weex yu xonq. bu ko defee mu jox ma turu ndaw si ak ma jël sagar ma jël. di fas jat di fas jat di fas mu juróom-ñaari fas. Mhm. ma ne ko boo toogee ba nga ko tëral doo ko ndaw si nga woo ma. bi ma fas yee deux heures temps laa toog ma ne ma sëñ bi ndaw si daa jékki-jékki. Mhm. wàcc na day ñëw sama kër pour seet si ma. ma mhm. nga foofu. Hmm? mu ne bu mu juddoo ba rek sëñ Bara mosuma gis lii. mu ne ma xam naa ne. am nga xam-xam macha allah. ma ne ko déedéet yàlla mooy maye lu ko neex mu def ci nit. yàlla mooy xool. taxsis moo tax ma ne wallaahu yaxtasu bi rahmatihi man yashaa wala sulfat naxasin. maay xool lu ma soob man sama borom ma defal ko nit ki loolu may yàlla rek la ndax yàlla moo fi nekk ndax lépp loo nit def bu ñu wakkilu ci yàlla du am mhm. kon nañu wakkilu ci yàlla mhm. loo gën a jege yàlla yàlla mhm. gën laa defale seen biir lu ma jaaxal ci ci Serigne Bara Niane def gis dèjà bi may dugg si kër gi dama gis ñaari gaynde yoo xamante ne ñoo seeq sa photo loolu lan lay wundu gaynde yi gaynde gi ndeyjoor bi mooy andi bu càmmoñ gi mooy fàdd gaay yi ndax kër ñaari yëkk am ñii dañu ñëw pour yàq ñii ñëw pour doomu aadama bu xëyee liggéey ba mu mm-hmm. am na ci ko xam ne bëgg na ko am na ci ko xam bañ na ko mm-hmm. doomu aadama bu dund ci àdduna am mm-hmm. nekk sa mag yi mooy raqibun ak xatidun xatidun mi ngi bind raqibun mi ngi bind loolu rek yi moom man lañ àndal te noonu lay nit ñëwee fi ne ba suñ boole mag gaynde yi nekk sa États-Unis wala Canada wala London maa ngi nuyu baax a baax Mariama Tall ma nga Angleterre mu ne ma suñ boole mag sa gaynde yi man gaynde yi man ko wax boo ko defee li ma ko defee pare ba mu sangoo ci laa ko boole gaynde bi mu ne ma fi ma mhm. ñi ma ñaax ñi ma gënoon noonu ci place mhm. ah, ma ko boolee ñoom gaynde mhm. ñi ko gënoon noonu ci place ba. dañ leen dàq dañ leen dàq ci semaine boobu. maanaam. Ah. kon gaynde daal du ay photo nii rek looy xool nii. ay secret la xamante ñu dagg jox ko nit ki mu sangoo ko ñu boole ko moom di ko wer doon si guddi da koy ah jëru ngay takk jëru nga def dara moo ko def rek gannaaw benn bi ma la jox nga takk jaaro boobu mooy ànd comme sa gaynde gi ok bi mooy ànd ak moom mooy ànd ak secret bi. waaw. Mm-hmm. sa jaar bi. Mm-hmm. gisoo ma takk nii. Mm-hmm. dafa am secret. kon jaaro bii nii du doon koy takk rek di dem ak moom daa am lu muy àndal. dafa am lu àndal. mooy secret gaynde gi nga xam ne boo ko jëfandikoo. mbooloom luy lore. du la ñëw ci yow mais mbooloom lu xët xeetu wërsëg. day ñëw ci kàttanu yàlla te kenn du ko mën a yàq. macha allah ci sa xam-xam bi la yàlla may. lan moo tax ndama ko di ko bàkkoo comme ni sëriñ si di def maa ma lii ku ma seet si ma defal la nangam ku ma lii ma lii dinaa def nii diw dinaa rey nii ku ma moytul boo ma defee nangam ma def la lii lan moo tax doo bàkku comme sëriñ si xam nga yàlla moo may ñëpp koo gis mu am la yàlla ko may mm-hmm. moo xam lu baax la moo xam lu bon la mm-hmm. pourtant yàlla ba ba mu bindee àdduna ba léegi mm-hmm. ku ne ngi def lu ne yàlla na teg ginnaaw rëy avion bu ci suuf pourtant day moo tax bu picc rëy yàlla rek la jagoo mm-hmm. moo jagoo rëy mm-hmm. te yàlla sax rëyul mm-hmm. ndax li tax rëyul mooy baraana boo xam ne mi ngi tooñ yàlla guddee bëccëg te yàlla rëyu ko def ko lu ko metti di ko gën a bànneexal di ko gën a jay muy gën di def mais yàlla yàkkamtuut la am na an na ma jahannama mi la jinnati war naa si ajmahin yàlla yàkkamtuut kenn mais a yawma a ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanu yasibuun yàlla neen yow wax yàlla kenn ku ci nekk say ki man loolu kon du yàkkamtul dara ci moo tax yàlla rek ma yëgoo rëy mhm. moo tax li ma yàlla may su ma réyoon man mhm. yàlla mën a rocc xam-xam bi mhm. te secret bu mu def si man rek la secret boobu nag damay fexee dimbali ci nit ñi ki xam xamul ma dimbali ko ci boo xam ndax yéen bi yàlla dana ko xéwal gi ma la xéwal yow yéen bi partagé ko ñi xamul xam wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis dan ma tax yéen bi réyut tegeewu ko ci ndayam tëggee ko ci baayam tëggee ko ci dara lu mhm. mhm. kon doy yàlla ñu moo ko mhm. xam-xam bi ñu am bu ci àdduna macha allah ci wàllum ñaan dafa loo xamante ne li la ci yàlla may bëri na waaye dafa may jaaxle yoo xamante nit ñi dañ koy jaaxle ñëw di la seet si lu ci mel ni mbirum tële nga xamante ne lëmbe na àdduna kër yi tas nañu sëy yaa ngi tas te ñu ci bëri ndeysaan dañuy am kersa sax di ko wax nit pour mu fajal leen seen ay soxla lu ci mel tam mbirum tukki ñi nga xamante ne nekk bitim réew këyit jafe leen lan nga leen di mën a wax ci ñetti yi parce que dama bëgg semaine bu jot ñu waxtaan ci xam-xam yi nga yor parce que xam naa du jeex. dëgg la macha allah xam nga wàllum euh, kattan dafa nekk loo xam am rab moo leen koy def. ñenn ñu du liggéey la ñenn ñu liggéey takk xala. ñenn ñu du liggéey du takk xala. seen yaram seen moo dem ba nooy deret dafa tàng. am ñoom seen deret dafa tàng. seen deret ci boobu moo dem ba ferñeent yi war arm yi war a fommante mhm. kàttan gi mhm. moo xaw a dee mhm. walax njaan yi mboolem góor goo gis ci naqam dafa am ay walax njaan walax yooyu bu dee bay néew doole moo waral ñu néew kàttan moo ñu bare bëri dañu woob sëriñ sëriñ ba ne leen da ngeen am rab bi la rab bi la nee net xaaj bi du rab xaaj bi ñu néew kàttan du rab ferñeent yi walax yi nekk ci naq ku góor gi mooy dem ba néew doole walax yooyu nag ngay faj ni nga fajee man ndoxum koko mm-hmm. ak yaa xëyu yaa xëyum am nañu ci boole nga jëfandikoo ko mm-hmm. kàttan bi danaan pekk ñëwaat ndoxum koko waaw ak secret bi muy àndal waaw mm-hmm. parce que ñi si bu ñu ma wooyee su ma leen defee loolu moom dañ koy naan man siñu man wér na moo jaaxal man du ñi ci ëpp dañ naan leen rab rab la rab la rab ci ëpp bu dee téeméer lañ juróom ñeent fukk yi ak juróom ñeent yëpp ñaan boobu moo dem ba amul nga xamee ne góor mën naa see jabaram ñaar fukki at doom doom di mm-hmm. ko wax njàmb la mm-hmm. ci kàttanu yàlla lépp ci kàttanu yàlla mm-hmm. noonu la may demee noonu la ci wit góor ñoo xam ne bu ñu tëdd jigéen ci bis bi rek jigéen mën a am ci bis bi noonu la amee noonu la amee jigéen ñoo xam ne duñu gis bànneex parce que seen wàllu njaan bi nekk seen kanam bi moom moo xaw a néew parce que yaa yëpp am góor am na ko jigéen am na ko loolu rek la bu dee wàllum tukki mi tey waaye n sureko laahu nasran xasisan képp ko bind waaye n sureko laahu nasran képp ko bind boo àndalee sa turu wala boole ko moom. Hmm. ak turu dëkk ba. Hmm. jëfandikoo bu dee nga wuti këyit boo àggee di nga am. Hmm. waaye am na beneen xam façon xam-xam boo xam ne du lu ñuy bind ba tey. boobu ay mbir la. <laughs> boobu moom. damay teg ñaari paaka nii. teg buum bi nii. am na ma def ci kaw. su ma tegee jooni jooni jooni jooni ñaan jooni laa. sept jours nga xool. waaw ma liggéey ba pare. nga xool bu dee këyit yu dëgër. nekk ci place ñu bañ la ko jox wala loo war a déposé wala loo yaakaar. boobu moom jooni jooni la te du amul bind. man yàlla dafa ne xam-xam yi ma am. Hmm. dafa bari. Hmm. léegi naa ko sànni mu nekk ab bomb ci hmm. kenn ku ñu nekk. boo jàngee di nga xam xam ba. boo jàng doo xam. boo gëstoo di nga xam. boo defee di nga xam. man nag damaa jàng xam-xam alxuraan. ba xam ko lool dem gëstu xam-xam. ndax da ngay gëstu. parce que yéen xa kullu si xam-xam boo gis am na xam-xam bu gën a féete kaw. kon doo xam al xam-xam bind rek. na ñuy seet amuñu xam-xam déedéet. ña des xamal li ñuy nekk. gëstu ko ba xam lan la. ba pare mhm. soo ko wax. Mhm. Sénégal da nga gis te yow ka ngay mhm. da ngay gis naan kii naa alxuraan dafa yéex alxuraan dafa yéex astafurlah loolu kenn du ko wax. alxuraan a gaaw luy gaaw mais ki koy bind ndax sell na. waaw ki koy bind ndax du ndax lekk alal jàmbur. maanaam yor bi. est-ce que yor na code bi koy koy décoder. waaw comme ni ngay amee wifi. nga dugg kër jàmbur mais am na wifi. mais gis nga wifi bi mais mënoo dugg ci wifi bi. nga naan wifi bi daa yéex a ñëw mais yow gis nga wifi bi. Mhm. affiché na sa téléphone. Mhm. mais mën ne kon a mhm. ndax amoo code bi. loolu rek la demee. macha allah bëgg naa tamit xam naa li ñu war a waxtaan bëri na waaye am na ci loo xamante ne tamit mbirum divorce yi. mbirum divorce yi bëri na rawatina ci célébrité yi faw ñu dugg ci balaa ñu ñëw ci coupe du monde bi ndax moom la ñuy jeexalee gis nañu célébrité yi seen sëy du yàgg ñi fi seen sëy yàgg mu ne leen compter ñaar lay nekk ba ñett. bu ci mujj gi rek mooy mbirum Mia ak euh, Mabo ci seen sëy euh, ni mu demee mu naqare nag sénégalais nag gisoon nañu complicité bi ñu amoon ñoom ñaar rawatina ñu bokk liggéey bi ñuy def. if cap. Mhm. amul lu mënta yàq ci àdduna. Mhm. moo tax sëñ Juba ne. Mhm. yàlla baa ngi lay ñaan nga musal. cap ak bët ak làmmiñ ak jënd ju bon. wakun muhinsan lana min sarri see hasadin masarra famin wasarra xayni yàllaahu wasarra sihrin mhm. wasari xalq xayni mooy tekk bët mhm. wasarra sihrin mhm. wasari xalq in suuf moom maa jinni wasar sumu yàlla ak jënna jubal yonent bi nee na ba tey sama xeet yi bu dee ñett lañ ñaari xeet yëpp bët ak làmmiñ mën dugal ci biir a yonent bi wax loolu kon jàpp lu doy waar la te lu am la baraa na ñoo xam ne buñ tuddee na ah sayyidu gi sayyidu sayyidu bi dana neex seen say bii allah làmmiñ woowu tudd loolu rek. Mhm. te ñoom wutuñu cat galay tet wutuñu kaaraange rek day jàpp. Mhm. mais noonu la mel nag yoo xam ne yàlla da koo wàccee pour yu dàq cat. Mhm. man am naa ci sunguf soo xam ne sunguf bu la nga ñëw ma compal. jox boo ko sangoo. juróom benn fukki juróom ñaar cat du la jàpp. loo xam ne dañuy bind quarante neuf heures njàkkaadu nga bind ko boole ko am na nu lay wax nga def ko. soo ko sangoo cat day dañ ci yow ba set wécc. maanaam mun na la aar daal. day dem bi ceeb ba seet wicc mhm. ndax yàlla lépp lu mu ënd ci lu lay waar rek ënd mhm. na lu ko mën a saafara mhm. moo tax yàlla wax ci alxuraan ne inna laaha laa yuxayyiru maa bi xawmin xataa yuxayyiru maa bi anfusihim mu ne chaque chose en son temps du ma ñëw di leen soppi yéen yéen xool lu war a soppi ngeen soppi ko xool li war a ci yéen ngeen soppi ngeen soppi ma ñëw di leen soppi kon lan moo tax yàlla wax loolu ci alxuraan wax mbiru cat dafa am cat dafa dawaat lool. kon jàppam ne daal li jëm ci mbir mbirum divorce Mia ak euh, jëkkër ji. cat bokk na ci li ci ëpp cat bokk na ci. na ci yoo xamante ni cat bokk ci mooy ñoo yokk seen bopp cat. Mm-hmm. chaque jour ngeen di génn. Mm-hmm. di def fii dem fii may nañ ko diw may nañ xaalis diw may nañ xaalis diw yëpp xeer cat la ñoo koy seen bopp. Mm-hmm. am na ñoo xam ne ay dëddale am na. am na ñoo xam ne ay dëddale yu ñuy def nit. mais nit ki buy sëy da ngaa war a fexe ñett si sëy. lu am solo la. mais nag yàlla na day dogal man ngaa ñëw sa say def lépp yàlla nekk ak ñu dogalam mhm. loolu moom mbiru yàlla kenn mënu dara sëñ baarul keneen mhm. mais rek ba tey am sabablu mhm. bari am na ko xam ne boo sababloo yàlla jàppale la moo tax yàlla wax xam ne wa aataynaahum min kulli shay'in sababan nee na yow doomu aadama bi jugal nga dem sabablu mais boo sababloo ba pare nag ba tabaxa sababan toogal nga jàpp ci yàlla wakkilu ci yàlla xaar yàlla bu ñëw kon doomu aadama buy dund war naa fexe di sabablu ci loolu doomu aadama macha allah Dieyla moom mu ngi doog dugg ci wàllum sëy moom ak jëkkëram ba léegi ñoom ñoo bokk di ñuy def ndax jëkkër ji mooy manager am ñoom tam la nga leen digal ak lan nga leen di wax. Dieyla xale bu yaru la. Hmm. te nit ku baax la. ñu baax Malick Cissé loolu sax xam naa ne. yaa ma ko laaj. Hmm. ñu baax moom xale bu rafet la xale bu baax la. Hmm. te xale bu gëm boppam la. te jëkkër ji na xam ne yor xale boo xam ne xamul dara. nit ku nit ku jub la. loolu ñu ci moom. te gis nañ ni muy seede jëkkër ji jëkkër ji ni muy seede ci moom mm-hmm. loolu mooy lu rafet mm-hmm. loo xam ne jigéen ju ne loolu nga bëgg mm-hmm. loolu nga bëgg sa di góormee ko jëkkër ji kasaalika day ci te lépp lu ñuy def rek nañ jiital suñu borom subhanahu wa taala ci sëy bi ndax sëy du xare jaamu yàlla la bépp jigéen buy seeg sa jëkkër wala bépp góor buy seeg sa jabar mu mel na xare may leen te jàmm ngeen tàggoo kenn ko dem sa kër ndax sëñ du xaar sëñ jaamu yàlla. Mhm. koo mënta nekk ci jàmm. Mhm. bàyyi ko mu dem kër ndeyam bàyyi ko mu dem kër baayam. doom mhm. mooy mbir. ñu jeexalee ko ak euh, coupe du monde bi Sénégal qualifié na Aliou tànnoon na euh, vingt six joueurs Sadio Mané euh, bokk ci waaye blessure bi biñ dem ba ci biir dañu insister insister ñu xam ne kii mënatul bokk mu génnee ko am na sax keneen ku mu woo ko tudd Moussa démb koo xamante ne dafa ñëw pour bokk ci effective bi. blessure Sadio Mané bi jaaxal na ñëpp hmm? waaye tam démb gis nañ ne Benzema meilleur joueur du monde ballon d'or c'est-à-dire ñaari ballon d'or yi ñoom ñëpp dañu bokk ci coupe du monde mu nekk lu yéeme loolu tam cat mën na cee mën na cee am dara lu mu ci def. xam nga bu dee Sadio Mané. Hmm. man. Hmm. personnellement sama xam-xam bopp. da am mbir yoo xam ne. mën naa bañ a mbiru cat. dañuy xam nga ñun am nañ xam-xam. Sénégal am nañ xam-xam. Afrique am nañ xam-xam. waaye nañ xam tubaab bi am nañ xam-xam. am na ci réew yoo xam ne xam-xam ya def. Mhm. xam kuñ kuñ ci dóor. benn kër mu tax xam naa man réew yooyu te dama fay dem. xanaa mooy féticheurs yi. xam naa réew yoo xam ne. Mhm. xanaa xamul Équateur. Mhm. réew yu ëpp xam-xam. ci adduna bi moom ci la bokk. Équateur waaw. parce que Guinée Équateur la. Équateur. ci adduna ci boppam moom équipe boobu. dëkk boobu. fa la bokk. dëkk boobu ñoom ci bopp ndax dem naa ba foofu lépp ci biir gëstu xam-xam mhm. mais ñi ko jàpp mhm. mën naa bañ nekk sa cat Sadio Mané man jàpp naa ne cat bi ko jàpp naa li mu baax ak sarax mi def mhm. ak mu def Bambali dëkk ba yëpp gëm naa ne yàlla mën na ko dimbali mais am na xeeti xam-xam yoo xam ne buñ la ko defee taal ay bourgie teg la comme esthète nii jël ab jaasi dagg benn tànk bi am lu def loolu kooku ko ko def xaw mu dal dafa wax yoo xam kenn ko tudd. Mm-hmm. ci mm-hmm. mais gis nga saa yi man xam nga mën naa koy def. Mm-hmm. mais ci kàttanu yàlla na ñëpp ñaanal Sénégal ñu gañe mais yàlla moo dogal. lu ko neex mu def. ndax am na xam ne ñu yàlla. mais ñëpp amoon na yéene xale bu jàmbaar la. xale bu kii mais nañ ñun nañ jàpp ne. Sénégal am nañu borom xam-xam ñi ngi ñaan. mais équipe yi tamit. seen i ñi ngi ñaan. te borom xam-xam. tey sëñ Bara bu ne woon bu ma ministre boo woon tey na ma hmm. sëñ Bara léegi dañuy Sénégal dafa bëri waa dóor. Hmm. boo jàpp nit. Hmm. pour mu bañ a dugal koo jàpp doo jàpp ka gën a ka gën a aaj. waaw su football la. équipe boobu Ivoire d'Or bu nooy dee Sénégal. duñ ne ka gën a aaj Sénégal dañ ko jàpp. ñu jàpp Sadio Mané. xam nga dégg laa wax dëgg la wax dëgg la wax. wala kasa jàpp nga ne daal. ñun li ñuy def ci ay ñaan pour suñu équipe ñoom tam ñu ngi koy def ay ñaan pour seen équipe. lu lu lu ko raw ñoom ñu koy def seen équipe mhm. lu ko raw. Mhm. ñu ngi koy def seen équipe mën a wax. tey looy diggal Aliou Cissé mi nga xamante ne moom tamit euh, macha allah jox nañu coupe d' Afrique. jàmbaar la. Mhm. nit ku jàmbaar la. nit ku jàmbaar lool lool lool lool. ndax am na ci benn magam boo xam ne xaw ma rakam ab sama la sama la. mu nekk Paris. ndeysaan ku xam ku baax. mais li ma xam mooy mooy. moom ci boppam na gëm gëm gën a gëm mystique. Mhm. nga xam foo xam ne ñu ci faa ka fa àggale. loolu laa koy ñaan. Mhm. ba ci ministre des sports. Mhm. Yankhoba bu Thiès ak euh, comment dirais-je l'autre là. Ablaye Sow a gëm ne. mystique tamit bokk na ci affaire buñ ko gëmul. def ci mystique ndaw na ah nangam nangam. affaire gëm-gëm la nangam déedéet am na. mais mystique am na fu mu yàggal nit. ay xoo am na sëñ bi. xoo am na. nawetaan rek boo fa demee da ngay jommi wax ma la nationale. ma ne. Mhm. am na ci loo xam nit bu ko defee ci biteel laa la wax. Mhm. ba def ci guddo ko weex. Mhm. ba def ci tiir. ba def ci benn banaana. def li may def ci banaana bi. teg ko ci kaa yi nii teg. parce que gis naa ci laa ilaaha illa xabal du buggee kaa yooyu. am nañ gën a gëm loolu. même même mu defu loolu sax nañu def ay sarax. def ay sarax. bu dee équipe bi ñu xool limu équipe bi comme bu dee Sénégal day jël turu Qatar. Mm-hmm. keef la tala. Mm-hmm. alif mm-hmm. ak ra. keef gi vela. dagg taxaw bi alif bi taxaw amoon ra gi taxaw deux cent nga àddal ko wàccee ko jënd ko ay guro yu weex. xam nga yomb na mu dul sax li ma wax nii mu dul sax cinquante mille. ko ci cin. toggee ko tiir bu xonq. mel ne mën na yoroo dix. ci seen kaw ñoom. ay xoola yooyu am na. yooyu eh, nañ koy def gën a def ñaan dama wax ne xam nga information am na mm-hmm. ko sax mm-hmm. koo xamante na nga ko defal si waa Sénégal di ñaan di sarxe di mm-hmm. ñaan yàlla te bàyyi lépp loxo yàlla ndax xam yàlla bu ko neexee Sénégal jël mooy xool lu ko soob mu def ko ci ko nañ ñaan yàlla daal Sénégal yàlla may leen ndam te mu gën ci yéen mu gën ci ñoom gën ci ñun mu nekk seen ndam lu set guy lañu ñaan kàttu Bara Niane def gis yàlla may la lool xam-xam boo xamante ne tey kenn du ko naataable ndax tey boo dugg sa ci kër gi rek toogaay bi di nga xam ne fii kilifa moo fi nekk te ay kilifaa fi ñëw te sa biru bëriwul sa coow bëriwul waaye da nga wax ne yow dërëm ngay laaj ci seet te ñu gis sëriñ soo xamante ne bu dee Europe nga nekk cinquante dollars bu dee France euh, bu dee États-Unis cinquante dollars bu dee Europe cinquante euros bu dee ci dëkk yi lu day gën a yéeg yow nga ne dërëm ngay laaj. te ma boole la ak nit koo xamante ci émission bi la la xamee nga seetal ko mu gis li nga ko wax te laajoo ko dara. waaw xam nga tax dërëm bi ñun cosaan la. Mm-hmm. ak noonu la. Mm-hmm. dafa am benn góor gu mag lu ma tudd kan la mu ne ma. Mm-hmm. boo laay seet lu passé dërëm boo wax ñaanal ñu affaire rawaan boo ma jox boo ma joxee dërëm. naa ci wax loo xam ne ba nga juddoo ba di nga toll. naa la ko wax. bu dee Sénégal nga nekk. bu dee nekkoo fi nag soo ma wooyee. bëgg dem am na ko booba. koo xam ne ma nga fee Thaïlande. mu ne ma damaa bëgg seetlu seet ñaar ma ko seet dërëm mu ne ma dërëm ñu ngi ñu ngi ci dërëm mu ne mosuma dégg loolu mm-hmm. ma ne ka ah, mu ne ma laaj mu ne nu ma ko nu ma ko yónnee man ka ah, dërëm kenn ko yónnee bu dee heure ma nekk baa ma seetal la gratuit mm-hmm. ma seetal ko mu ne ma sëñ bi daa la benn affaire même bu du dara mm-hmm. ku gëm yàlla nga ndax li nga ma wax tey te seet gi nga ma wax nii nit mosuma wax li nga ma wax te day lu wér mu ne ma man personnellement maa yëkkati cent mille francs yónnee la ko li mu jox la ko joxal bi seen biir macha allah ma ne ko cent mille yi de na nga xam ne du seet gi ma ne ko du seet gi mais dama koy jox xam seet mm, dafa kon nangam tàng laa bëgg léegi nañ def ñaan mm-hmm. ba mu ma waxee la muy soxla tamit mm-hmm. fekk man mi ngi sama wet mm-hmm. si naa ma mu jàll la bouton bi laay bës ak mu jàll mu dem ay bouton laa yor day bëgg loo xam ne ngay bës bouton mu dem <coughs> fekk mu ngi nekk sa wet moo tax ñaan gi day gaaw da ngay ah. ñaan ni mu xëy woo la gis naa li moo li ah. da bës bi rek mu dem moo gën a moo raw sa avion da ngay bës rek mu dem. te da nga ko yombal c'est-à-dire sëriñ si dañuy dañuy yuuxoo ko tëb maa def li mais yow da ko toog fi nga toog li ñu naan bëri ko bu fees du yëngu. waaw xam sañu borom. Hmm. moo bind ñëpp. Hmm. te ñu bëree nga koy toj ñaata nit ñoo toj suñu borom par jour. Hmm. daa xool yàlla ba mu bindee àdduna ba rek ñu ne tekk rek def nii. da xam tuuti leen. xam na lépp. loolu rek la. macha allah. nit lu mu rëy rëy bu dee xam nañu wax. Mm-hmm. un néew bi suul la suul suul la néew mm-hmm. bi. rafet nañ jublu te suul mu ngi mm-hmm. un néew bi dañuy wax un néew bi. pourtant am na tur. ba. te dencaguñ ko. xam lañu wax. ana néew bi néew bi. ana néew bi wallaay. kon àdduna jaru jur tur yi. macha allah am na loo xamante ne tamit bëgg naa ñu jeexale ko ci lu jëm ci mbirum Waly Seck dafa am benn sëriñ bu fi génn fan yi ne Waly Seck na jug ci boppam ndax mu nekk ni mystique mu ngi ci kawam. te bu moytuwul dina am lu ko daal ba sax li daal am Amar sax mun na daal Wally Seck lan nga ci wax en tant que sëriñ. xam nga loolu moom du yëfi nit. Mhm. ndax ab sëriñ ab sëriñ. Mhm. ab sëriñ laa wax de. Mhm. du wax loolu. ndax sëriñ dafa am. këriñ am. fëriñ am boo ko gisee. boo mënee gis Wally Seck nag génn naa ci naa ma naa nga wax ko boo gëmee baax bu gëmul baax. wala boo ko mënee. te ba mënoo gis Wally Seck. nga war xaalis boo mën a génnee sarax. ko sax defal ko te yàlla tax. billahi la si laa ilaha illa mm-hmm. am na ci koo xam ne bi muy def la koy dal mm-hmm. damaa toog fii boo mm-hmm. gàdde ko ram wax ba def te ba la ko ba loolu bu ko dalee la damm ca moom dama ko na sant yàlla mënoon na gën a metti te boo sax dugub laa ko laa ko gisal dugub kese waaw xam nga li gën ci réew mi yëpp ak li may wax du mu mu ko wax ci àdduna loolu day fini d'abord dem képp Mhm. man gën naa président Macky Sall te li ma gën ca wax. président Macky Sall ci boppam. te pourtant xëy naa suba génnee samay sarax bopp intime. Mhm. man personnellement. Mhm. defal yàlla defal ñëpp jàmm defal ko jàmm moom. loolu loo ci wax. jarul du yëf nit di. boo gën teg safar. defale sarax ñaan jàmm na Sénégal ñëpp ñoo bokk réew mi. mais gént naa ni na def nangam nangam na moytu nangam loolu nit kenn ko tiital. nit ñaa ngi gëstu nit te ku yàlla gëstu nga torox nit ñi ngi gëstu nit yàq nit mais mm-hmm. xamuñ ne képp ku yàlla gëstu nga torox mm-hmm. te yàlla xëy ci doomu aadama mm-hmm. bu ko neexoon benn tëral adduna bépp mancé jaxasoo ci benn tëral yàlla wala coronavirus bi corona bi mu fi ñëwee rek wallaay dëgg la kenn dalu kenn ndaay ak doom sax dañuy dawante bàyyi rek di dawante nga génn ñu ñëw ñu la daw naan ah doo raxasu nangam nangam xoolal yàlla ñu def loolu kenn ko war naa war nga jàng ci loolu dara xëccu ci nit du jàmm kon nañu mhm. yéen a jàmm di xam mhm. jàmm mhm. moo tax yàlla wax ci alxuraan ni xataa laa takun fitnatun wa yakun diinu laa diine islam du diine fitna diine jàmm la kon nañ ñi bàyyi di tiital nit ñi di wax loolu loolu baaxul ab sëriñ du wax moo tax ma ne sëriñ dafa am këriñ am fëriñ am ñett yooyu nag benn bu ci nekk faaw ñu ko xam ab sëriñ dëgg du wax loolu boo mënta dem ba toog nit ki wax ko bu gëmee baax na bu gëmul baax na mais yàlla wax alxuraan ne borom xam-xam hmm. dimbale ñu xamul hmm. ñu xam fasalu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun ñun ñu xamul laaj leen ñu xam hmm. bu fekkante ne mënoo loolu rek kon yow ni yàlla wax nekk ko ci ndax ku xamul rek boo gisee ay mbiram nga wax ko ne ko ah nii ak nii moo gën nga toog teel ko loolu laa gisee affaire bi macha allah ñu ngi lay gërëm lan ngay jeexalee di sant bu baax di gërëm di leen nuyu di leen ziyaara di kontaan bu baax ci émission bi naan yàlla lépp lu ñu wax rek mu nekk loo xam ne yàlla gërëm la bu ñu ñëwee nag dañuy juum. Mm-hmm. am na ci ko xam ne nuyu ko. Mm-hmm. sant. Mm-hmm. mooy benn bi daan dama ngay wax ne ko su ma toog émission naa la tudd mu kontaan. ab Burkina bi la. Abdou Karim nekkoon ancien ministre jaana Burkina yi bés comparé. dañuy waxtaan ci whatsapp bi. ñu ngi koy nuyu ba di koy ziar. Abdou Karim Bison <laughs> Loof. Abdou Karim di ko nuyu baax di ko jox wàccuwaayam. te nit ku baax tamit. nga xam ne. maam yàgg ñi ak ànd bi ñu yàgg bi ñu ànd daal ak lu mm-hmm. bare ba loo xam ne a am mm-hmm. kon di nuyu ñëpp mm-hmm. son excellence président bi Macky Sall ak waa Sénégal ñëpp du nuyu baax a baax euh, waa Akhlou Def Guiss ñi nga xam ne ñaa nga États-Unis jiital bi Maïmouna Sarr ñoo ko ak Khadim Diop ñoo xam ne moom groupe boo xam ne spécial topp suñu Cheikh Bara Niane borom Def Guiss ñoo ko ubbi que képp koo xam ne. Mm-hmm. am ma ci gént. Mm-hmm. wala lu la jaaxase yaram. Mm-hmm. wala lu mel noonu lépp ñu ngi dimbali foofu. ñoom ñooy groupe boobu. di la sant di la gërëm sant di la gërëm. di sant sa professionnalisme. ak ci ci xam àdduna. ak bëgg dimbali nit ñi. ak lépp lu baax nga nekk fa képp ku dox ci caaxaan. doo ko gis du la jege. du sa xarit. man loolu jàng naa ko ci yow te man tamit. alxaqu min rabbikum wa man shaa falyu'min wa li may wax ci yàlla laa ko tibbee. yàlla laa koy moo tax may wax. kon nag képp ku gëm dëgg. dégg ko baax na képp gëmul dëgg dégg ko loo wax rek damay xam ne yàlla moo bind ci alxuraan ne mhm. am na ñoo xam ne duñ dégg xéewal duñ gis xéewal mooy xatama mhm. laahu alaa quluubihim mhm. wa alaa sam'ihim wa alaa absaarihim ghishaawa yàlla nee bind naa doomu aadama yoo xam ne luñ dégg nag dëgg dëgg la de yàlla ma wax loolu dëgg la luñ dégg rek luñ dëgg dëgg kon nag jërë ngeen jëf di leen nuyu baax di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf Serigne Cheikh Bara Niane la ñu dalaloon tey ci émission bi nga xamante dañ ciy waxtaane wàllum xam leeral ay xam-xam yu bëri yoo xamante ne mu ngi koy def ku ko soxla numéro téléphone yaa ngi noonu affiché wu ci écran bi mu ngeen ko woo seet bi dërëm la kon nag loolu defe naa yéen koy doog a dégg ci Sénégal xam-xam gi mu làmboo gi mu toogaale ne moom seet dërëm la koy defee xaarul ci seet dara lu dul dërëm ndax ndigal gu mu am la ci loolu kon nag ñu ngi koy gërëm Serigne Cheikh Bara Niane numéro yaa ngi ko woo leen ko bu ngeen fi ñëwee seen aajo faju ndax ñu ñii gis nañ ne bu fi ñëwee wala boog ñi fiy ñëw seen aajo ngi faju waaye ñu koy woo tamit depuis bitim réew seen aajo ngi faju jërëjëf